te fu mu toll nii mooy euh, Omar Ampoy Bodian yoon toppeetu ko dara bàyyi na ko ci René Bassène nag la ñu confirmé la ñu acte bi ñu defoon ci première instance ba léegi moom la euh, cour d'appel téye donc René René René Bassène bàyyi bu ñu man sumay may jàngat décision bi ci li ma défendre rek laa jàng ci côté Omar Ampoy Omar Ampoy pour man décision bi baax na trop parce que loolu lañ doon wut pour ñu bàyyi ko fu mu toll nii bàyyi nañ ko yoon toppeetu ko dara ñu ngi ciy sant yàlla bu baax. bon ci René Capin il faut ñu xaar ba décision bi lii tribunal ate ñu xam naka lañ ko ñu jàngat décision bi pour xool ndax war nañ mën a def euh, pourvoi en cassation dem ci ëttu attekaay bu mag bi pour xoolaat ñu xoolaat décision bi mais loolu il faut ñu xaar mënaguñ ci tontu daal.